réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu toll. les patriotes TV. dinañu matal suñu dossier yëpp def suñu parrainage yëpp ba dem déposer conseil constitutionnel ba nag conseil constitutionnel dana ne candidat la ñu def dara jox nañ la ñaari mandat. sant leen gërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen seen bii di les patriotes yi dal leen ak jàmm mbokk internet yi kàddu yi ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko kàddu yi mel ni bu ba mu koy yëkkati mel ni démbuloon waaye nag di leen fàttali ne nekkul démb benn yoon ndax benn déclaration bi mu doon def si la doon yëkkati kàddu yu ni mel dinañ def le pour suñu candidature mën a mat maanaam suñu dossier yëpp mat ñu fexe tamit suñu parrainage mat ñu daal di koy déposé fi nga xamante ni moo di conseil constitutionnel. ba xam ndax conseil constitutionnel mi dina ko validé wala déet jamonoy tey jii nag fa la ñu tellu def nañ li ñu mel waaye nag kàddu yi boo ko déggee nag day mel ni moom mii nag amul confiance benn yoon. si li nga xamante ni mooy conseil constitutionnel pour mu valider li nga xamante ni moo di seen candidature waaye nag bu ko valider wut ana si lan la koy teg ku nekk xam na nag bala mu koy déposé wala balaa mandataire am di ko déposé sonn lool ci li nga xamante ni moo di jaabante diggante DCE wala CDC euh, dafa jaabante pour ay papiers yoo xamante ni yuñ ko waroon a jox la waaye nag loolu ñu naan janax bu bëggee mucc day bari pax loolee li ñu mel wala sax olof njaay ne ko maanaam kuy aj ku ne kuy aj ji la mën Ousmane Sonko déposé na candidature am kon.